alhamdulilahi rabbil alamin wala udwana illa ala zalimin wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man wala amma baad mbokki jullit yi ñu ngi dénk suñu bopp ragal yàlla di leen ko dénk ragal yàlla moo gën ci lu nit di def yóbbal buy dellu ci boroomam suñu boroom ne wut leen yóbbal yóbbalikat bi ci gën mooy ak taqwa gannaaw ba ñu xam ne bokk na ci jikko yu tedd yi nga xam ne am na wàccuwaay bu mag fa suñu borom tabaraka wa taala jikko ji ñuy tudde dëggu dëggu mooy cosaanu ngëm mooy cosaanul mën a mucc ëllëg ci mbugalum suñu borom tabaraka wa taala dëggu mooy ràññatle diggante ñi gëm yàlla ak ñi nga xam ne dañoo nekk ay naaféq yoo xam ne dëgguwuñu ci seen woote woo ngëm ay tegtal yu bari dikk na ci alquran ak sunna ak jàngale yi mag ñi nga xam ne ñoo jiitu woon ci lislaam di wax ci ngëneelu dëggu ak daraja ju kawe ji nga xam ne am na ko suñu borom tabaraka wa taala dëggu mooy fondation ngëm yàlla ngëm yàlla bu ca dëggu àndul loolu ni nifaaq lay tudd ak naafeq lay tudd dëggu mooy cosaani topp yàlla yi ñuy def yépp bala ko suñu borom tabaraka wa taala nangu day fekk dëggu daf koo lal moo tax suñu borom ne yowmal xiyaam day danaa fay ñi nga xam ne dañoo dëggu woon seen dëggal ga dellu waxaat ci beneen aaya ne bis bii tey day ñi dëggu woon seen dëggu gi dana leen jariñ al imaam ibn taymi rahimahullah wax ne dëggu day mooy cosaanul yu baax yépp comme ni nga xamee day tam fen ñàkk a dëggu mooy cosaanul ñaawteef yépp mi ngi soqi ko ci ñàkk wax dëgg dëggu mooy li nga xam ne mooy ràññet la diggante ku gëm yàlla ak koo xam ne naafiq ni ko yonente bi alayhi salaatu wasalaam waxe ne mandargay naafiq yi ci gën a fit ñett la benn ba mooy su waxee dana ca dugal wax lu amut ñaareel ba su diggee dana wor dana wuutal digg ba ñetteel ba suñu ko wóoloo dénk ko dara dana wor ña ko dénk te ñetti ci ko yooyu yépp soo ko seetee ñàkk a dëggu mooy la ko lal suñu borom tabaraka wa taala melal na naafiq yi ci alquran ci ay barab yu baree baree bari xam la ne ñi gëm yàlla rekk ñooy waa na waaye naafiq yi ñoom ñooy waa safara te ca ba gën a suufe ci sawara foofu la ñuy nekk dëggu mooy cosaanul lépp lu baax comme ni nga xamee ne ñàkk dëggu mooy cosaanul gépp ndëngte comme ni mu digg ci hadis yonente bi alayhi salaatu wasalaam mu ne maa ngi leen ci dénk dëgg dëgg kat dafay wommat nit ki ba jëme ko ci ak mbaax te ak mbaax day wommat borom ba dugal ko aljanna bokk na ci am solo dëggu ci dëggu malaaka yi dañuy wàcc ci moom ni ko borom bi waxee tatanazzalu alayhimul malaika alla taxaafu wala taxzanu amma ci nga xam ne dëgguwul ne kooku seytaane yi ñooy wàcc ci ñoom hal unabiyukum ala man tanazzalu shayatin tanazzalu ala kulli affakin athim suñ borom ne ndax duma leen xibaare ci seytaane yi wàcc ci ñoom nee na ki mi wàcc ci moom mooy ki nga xam ne kuy sos la ku ñeme wax lu dul dëgg la ku bari lu ñuy def ay bàkkaar kon nag jihaat ak sa bakkan ba mën a dëggu ci sa mbooleem mbir yi ngay def loolu moo lay eggale ci daraja bu kawe bu ñuy tuddee martabatu siddiqiya bi nga xam ne moom la yonente bi alayhi salaatu wasalaam wax ne jaam bi du deñ di dëggu di dàkk dëgg ci lépp lu muy wax bañ mujj ko bind fa yàlla ne diw day dëggal kat la atta yuktaba inda allahi siddiqa te daraja yi siddiqiya boobu muy dëggu boobu mooy daraja bi nga xam ne moo topp ci daraja bi risaala ak nubuwa moo tax suñu borom tabaraka wa taala lënkale ko ak moom ci alquran wax ne ku topp yàllaa ko yonentam koo koy day dana ànd ak ñi nga xam ne yàlla da leen a defal xéewal ci ñi nga xam ne ay yonent lañ ñi nga xam ne nit ñu dëggu lañu ñi nga xam ne ñu shahaad ñu shahid lañu ci lislaam ñi nga xam ne nit ñu baax lañu kon gannaaw martabatu nubuwa la ca tegu mooy as-siddiqiya ñetteel ba ci liy tegtale am solo dëggu mooy garaaw ak bon goo xam ne ñàkk ñaaw la ko ak jeexit goo xam ne dana ko def ci société bi rawatina suñ société yi ñuy dund nga xam ne dëggu de cee néew lool wax lu daf cee bari lool ba mbir mi egg sax ba mel na li baaxoon léegi moom lañu ñu bonal ndax ka koy def moom la ñuy sikkal la bonoon moom la ñu baaxal ka koy def moom la ñuy sagg ba ngay gis sax jullit bi nga xam ne dafay jéem a dëggu di jéem a dàkk lépp lu dëggu di jéem a seet lu lew ak lu lewul kooku ñu jàppe ko nit ku teppal nit ku gàtt xel nit ku doye am maa nag waa ja nga xam ne moom dafay nar dafay naafiq ñu ne kooku mooy politicien bi kooku mooy nit ku xereñ ci kooku mooy nit ki nga xam ne ku yewu la su jamono demee ba ñuy natt nattukaay yu mel noonu société bu mel noonu jaar na ci yoonu daanu jaar na ci yoonu al ndax mucc ak texe mënta am lu muy ci dëggu aw xeet su dëggoo digganteem ak boroomam tabaraka wa taala dëggu digganteem ak ub yonentam xeet woowu kenn ko mën a gën bëre bi nga xam ne moo nekk diggante dëgg ak caaxaan diggante ñi woote lu baax ak ñi nga xam ne ñooy woote safaan ba bëre boobu la cay dimbali nit ki mu mën caa sax mooy mu dëggu digganteem ak boromam tabaraka wa taala wóolu ndimbalul suñu borom tabaraka wa taala li mu dige su loolu amul kat ndëgg yi dañuy daldi sarxiis eh, dogu yi itam dañuy daldi woyof ci kanamu balaa bu metti boobu nga xam ne moo nekk ci suñu kanam te borom bi tabaraka wa taala wax ndax da ngeen a jàpp ne da ngeen naan gëm na yàlla ma bàyyi leen noonu rek te du ma leen nattu fitnaal leen comme ni ma fitnaale woon ñi la jiitu woon bu boobaa nag nee na ñi dëggu dinañu feeñ ñi nga xam ne dëggu ñu itam boobaa dee dana leen xàppee bu ñu nekkee jamono yoo xam ne jamonoy fitna la ñi tey mën a sax ci seen diine mooy ñi nga xam ne dañoo dëggu dañoo xam dañuy jëfee dañoo dëggu seen diggante ak seen borom ñooñu mooy ñi nga xam ne suñu borom dig na leen ndimbal dig na leen dana leen def ay njiit moom la borom bi ne wa ja'alna minhum aimmatan yahduuna bi am amrina lamma sabaru wa kaanu bi yoo yuqinuun danaa def ci ñoom ay njiit yoo xam ne ñooy wane aw yoon lan moo leen may loolu ba ñu muñee ba noppi wóolu am yaqiin dëggal sama digg yi ma man digge man borom bi tabaraka wa dëggu gën naa yaatu ni ko ñu bari jàppe jàpp ne ci ay wax rek la yem gi dëgg dañuy defee ne dëggu ci wax rek la waaye fekk na dëggu dafa ëmb dëggu ci sa yéene mooy li jiitu sa pas-pas dëggu ci sa dogu dëggu ci saw làmmiñ dëggu ci say wax dëggu ci say jëf moo tax imaam ibn taymi laa di wax ne bokk na ci li nga xam ne war nañ koo xam nee na dëggu ak dëggal dana nekk ci ay wax dana nekk ci ay jëf comme ni ko yonente bi alayhi salatu wasalaam waxe nee na doomu aadama bu nekk faw dana jot wàllam ci mooy googu ñuy tuddee njaaloo mu ne ñaari bët yi seen njaaloo mooy xool bu ñu xoolee lu ñu wër ta xool njaaloo nañu te loolu néewaane ku ci mën a mucc ñaareel ba mu ne nopp yi seen njaaloo mooy dégg lu mu wërta dégg ci lu jëm ci loolu ñetteel ba loxo ba muy laal lu mu wërta laal te mu jëm ci loolu ñeenteel ba tànk ba mu ne su jëm ci luy sabab njaaloo boobu kon loolu mooy njaaloo mu ne nag xol ba moom dafay mébét waaye nag pëy ma mooy koy dëggal wala mu fenal ko nga kon nit ki dafay dëggu ci jëfam comme ni nga xamee ne noonu lay dëggoo ci ay waxam al imam ibnu qayyim rahimahullah leeral maanaa moom wax ne dëggu dey mooy cosaanul gëm yàlla comme ni nga xamee ne naafiq nag moom mooy cosaanul euh, liy cosaanam mooy ñàkk dëgg mu ne fen ak ngëm du mën a daje ci ab xol lu dul ne ñoom ñaar kenn ka ma ngay xeex kacca def nit ki bu fekkente ne ak ñàkk dëggu dafa nekk ci biir xolam ngëm yàlla du ko mën a dëggal suñu borom tabaraka wa taala xam le ne jaam bi yowmal xiyaam dara du ko jariñ ci jëf yi mu doon jëf dara du ko musal ci mbugalum borom bi tabaraka wa taala lu dul dëgg mu ne mu haada yawmu yanfau saadiqina sidqo bisub tey bii day ñi dëgguloon seen dëggu gën a leen jariñ tey dellu wax ne wallati jaa bi sidqi wa saddaqa bihi ulaika humul muttaquun ñi nga xam ne dëggu nañu ba noppi andi dëgg ki andi dëgg nag da koy indi ci ay waxam andi ko ci ay jëfam indi ko ci aw melokaanam fokk dëggu balaa man a daje ci nit ki ñetti melokaan yooyu day daje ñu la dëggu ci ay wax mooy say wax jub ci sa comme ni guub bi di jube ci gattax bi nga xam ne ca la tege dëggu ci say jëf mooy say jëf jub ci dëppoo ak topp yonente bi alayhi salaatu wasalaam comme ni bopp doomu aadama tegee ci kaw yaram bi dëggu ci say melokaan nag mooy nga dëggu ci li say xol di fas ak li say jëf cër bi jëf ci say jikko mu dëppoo ak moom li nga mën ci coono lépp nga di ko def di jihaad ak sa bakkan ngir dëppoo ak yonente bi alayhi salaatu wasalaam ci li nga xam ne moom la andi moo tax Abubakar di Sadiq eggoon ci sommet bi nga xam ne mooy dëggu bañ melal ko ci as-Siddiq ndax as-Siddiq mooy daraja bi nga xam ne moo topp ci an-nubuwwa as-Siddiq moo gën a kawe as-Saduq comme ni nga xam ne as-Saduq moo gën a kawe ab sadiq ndax dañuy wax ne nit ki wax na dëgg bokkul ak ñu ne wax waxkatu dëgg la bokkul ak ñu ne ku dëggu la. ku dëggu ki mooy ki nga xam ne melokaan bi dem na fa saxoog moom mu nekk ab dëggalkat diggante dëggu ak sellal am na ab taqale ñoom ñaar dañoo lënkaloo waaye am na ab taqale dëggu mooy taqale diggante iman ak nifaq waaye ixlaas moom mooy tàqale diggante tawxid wa sirk diggante wéetal yàlla ak bokkaale yàlla li koy tàggale mooy ixlaas diggante nekk ab julit wala nekkum naafiq li koy tàggale mooy ab sidq ndax ñiy wootee wa iman bari na waaye la leen di mooy ñu dëggu ci seen ngëm moo tax borom bi bi mu limee melokaan yi ngëm yàlla wax ne ñi nga xam ne ngëm yàlla gi bu ñu rombee ci natt yi bu leen yàlla tegee ñàkk seen ngëm yàlla du woyof bu leen yàlla tegee feebar seen ngëm yàlla du woyof bu leen yàlla tegee ay natt ñu di leen tëj kaso wala ñu leen génn di nangu seeni alal seen ngëm yàlla du woyof mu ne ulaika alladina sadaqu wa ulaika humul muttaqun wasabirina fi lbasaai waddarai wa xiina alba ulaika alladina sadaqu wa ulaika humul muttaqun waaye koo xam ne boo ñàkkee daal di dugg ci wutinu araam boo feebaree dal di dugg ci paju wiin wu aram buñ la tuumuraal keene tëj la kaso nga sax weddi yàlla wala nga bàyyi jaamu yàlla wala melokaanu lislaam bu nekkoon ci yow nga dindi ko kooku kat kuy woote woo ngëm na waaye dëgguwul ci ngëm nga kooku naa la gën a jëkk loolu moo tax dëggu ak sellal nekk ñaari sart ci sarti imaan moo tax suñu borom tabaraka wa taala weddi ñi nga xam ne dañoo woote woo ngëm te nekk ay naafiq ida jaaka almunafiqun qaalu nashhadu innaka la rasulullah ya la wallahu yaalamu innaka la rasulu wallahu yashhad inna almunafiqina la kadibun mu ne ko naafiq yi bu ñu lay dikkalee dañ lay wax ne gëm nañ ne yaay yonentu yàlla bi pourtant loolu naafiq wax moom la ñëpp wax waaye suñu boroom ne naafiq yi waxuñu dëgg dañuy fen ndax nekk ko nit ki boo waxee luy dëgg ci sa làmmiñ te posoo ko ci sa biir xol wax jooju nga wax du dëgg pour yow ndax naafiq yi innaka la rasulullah lañ wax yonente bi alayhi salatu wasalaam waaye gëmuñu ko ci seen biir xol moo tax borom bi ne innal munafiqina la kadibun comme ni nga xamee ne musrikuun ak ahlu kitaab yi dañoo wax ne seen diine moo gën ci diine yi suñu borom ne waxu leen dëgg ndax diine lay tax mu gën ci diine yi mooy nga sellal ko wa ma umiru illa li ya'budu llaha muxlisina lahu diin te ñoom sellaluñu suñ seen diine ndax dañ caa dugal leneen lu bokkul ak la leen borom bi tabaraka wa taala digal kon nag dëggu ak sellal ñaari mbir la yoo xam ne duñu taqali ko léeg-léeg danañu xamle kenn ku ne ci moom ci ab safaanam dëgg soo ko bëggee xam xamle dëgg dëgg dëgg dangay ngay wax ne ab safaanam mooy intifaau iradatillahi bil amal maanaam jëf ji su fekkee boroom jublootu ci yàlla kon dëggu nekkat fa lu kuy julli te julli bi jubluwu ci yàlla wala muy woor naka noonu su fekkente ne sellal itam liñ koy xamle mooy koo xam ne jëf ji jublootu ci suñu borom tabaraka wa taala nëmmatu ci ak payam am na leneen lu ko ko tax di def kooku kat bu boobaa kon moom itam dañ koy jàppe koo xam ne munaafiq la raa la waaye nekkatul koo xam ne kuy sellal la digganteem ak boromam tabaraka wa taala loolu mooy li nga xam ne ñu baree baree bari ci doomu aadama yi ci la ñu tabbi yàlla nu yàlla borom bi tabaraka wa taala musal boole na ci ñi nga xam ne dañuy dëggu dëgg dëgg dëgg dañuy sellal seen diine xutba bi rek des na insha allah dañ ko eggale ci yeneen xutba bu nu ko borom bi tabaraka wa taala jàpp na leen rabbana atina fi dunya xasana wa fi l axirati xasanatan la tusi qulubana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab allahumma salli wa sallim ala nabiyyina muhammad wa alihi wa sahbihi ajmain